ne moom mooy Assane mu war a tëgg suba euh, Assane maa ngi siyaar. maa ngi lay ziar naka mu. maa ngi siyaar bu wér. Cheikh Omar ñu ngi siyaar bu wér. voilà nga jógee Iba Mar fas yéene dem arène nationale. Mhm. Euh, pour dixième euh, édition. drapeau quinzième quinzième autant pour moi Aïda Mbodj. Mhm. mu nekk combat bu mag entre Feugeul ak double moteur. waaw événement la xam nga maman Aïda Mbodj lépp luñ ko defar rek am na lu des ndax bi fi ñëpp nekkee daf dafa tippoo ak ñun. ñu tippoo ak moom mu nekk suñu yaay di ñu jàppale. Eh, combat bu ñëw rek événement bu ñëw da nga naan moo dàq ca tafaatin Talla Gaynde ba fëgale double moteur événement bu ñëw combat yu mag lay doon événement lay nekk suba ñu ngi koy waaj ñu ngi waaj lépp lépp luy làmb ñu ngi koy waaj suba lépp luy spectacle ñu ngi koy waaj xam ne luñ si def rek maman Aïda Mbodj jaral nañu loolu daal. sécurité bi nu muy demee foofu lan nga mën a wax téléspectateurs yi lay seetaan ak amateurs yi lay seetaan. waa non ku xam suñu làmb xam Baol production moom sécurité mooy mooy mooy mooy njiit sécurité bi danañ ko danañ leen jël bu doy jox leen ñu añ ba suur ñu naan ñu àndandoo liggéey liggéey bi ci kàttanu yàlla dinañ def rond point ba ba stade dinañ def stade ba tribunal ba lépp ay sécurité ak biir stade bi. si kàttanu yàlla mën naa ñëw ci ticket yi. ticket yi 2000 la ak 3000 ak 5000. waaw waaw ah, loolu moom macha allah mais am na lu ma leen di wax loo xam ne si yéen laa koy njëkk a wax lamb ji nekkul direct. lamb ji 8 kilos lay nekk dinañ ko enregistré fan yu néew ñu teg ko incha allah mais nag nekkul an direct ci benn télé nag. merci leen ko def direct nag yéen site dama leen di wax leer yéen a gën a garaaw fi jërëjëf.